ñu ngi jublu ci at ñu ngi génn ci at mu jeex ci seen at ñoom ñu ci àddina jëm ci at mu bees ci seen at ñoom li ngeen di ragal yëpp yàlla bu leen ci gis dara li ngeen yaakaar yëpp yàlla leen ko yàlla won yal na yàlla indi jàmm ci Sénégal gi yaa yal na fi yàlla tàllal wërsëg wu law yàlla jubale leen boole seeni xol faqiir leen ci diine lislaam